toog ak Modou doomu Bécaye Mbaye waaw Modou yaay doyen de la presse wala. waaw père maa ngi leen déggee. waaw xam nga man maa nekkoon élève bu Paa yi. waaw yéen si lamb yi. waaw ah. ma maay seen doyen la. mais boo yooyu ñan la boo yooyu ñan ah. man. ah ñëpp. ñoom maay seen doyen ci la gars leen loolu Modou Mbaye Modou Mbaye daa mbapat avant moo àgg fii daa mbapat dama fekkee dama fekkee muy xëcc fiil bu muy nekk fële bu muy nekk fii waaw waaw waaw dante allahu akbar <laughs> da ngaa tarbiwu tarbiwu naa ko ah mais mais sa pap loo leen lay won wax affaire nu muy demee mosu leen am am échange ma jox leçon. ah. en fait la leçon dama koy apprendre sur le terrain. sur le terrain su ah, ah. may jéem a def loolu. dëgg la mais ma war a wax dara xanaa ma laaj ko ma ne ko a wax. waaw mu ne ma dofoo. dëgg la xam nga li nga war a ah, xam nga ak loo wax. lu ñaaw. waaw kon bul wax doom Bécaye ba yomb na. déedéet. yan ja yan jafe-jafe ngay jàngoon teel. doom Bécaye ba waaw ci làmb waaw. parce que ci làmb boo waxee rek. waaw am na fu ñu dëgg la xam nga làmb mooy sport boo xamante ne nii. Ah. ñi ko bëgg ñi koy seetaan ak ñi koy pratiqué. dëgg la seen esprit sportivité dafa des. dëgg la ndax boo analysé dañuy jàpp ni dafa far. waaw. or que xamuñu ne amul parti dëgg la jafe-jafe yooyu daf ci am dëgg la ak léeg-léeg nit jàpp ni faral diw waaw sa mbokkulu affaire yooyu dëgg la te demeewul noonu maa mais yow xanaa yow ñëpp nga faral waalo géejawaay Pikine yow fu ne ñu jiñ la fa c'est ça le problème kon ça veut dire que yaa ngi def sa liggéey waaw man nag noonu laa ko jàppee dama jàpp ni ah. macha allah liggéey bi mi ngi waaw parce que kuy bëreeg nit mbër rek waaw am na benn camp bu may moytu dëgg la waa Pikine kese dëgg faral ñi ne Balla Gaye la faral ñi ne Modou Lo mooy mbërëm ah, ah. ah ñi ne Eumeu Sène la faral mais loolu yëpp sant yàlla sant yàlla ñu gis Modou Mbaye bu bu combat amee day mel ni ku jëfru day def sax yaramu neen ànd ak public loolu sa sa style boobu nan la la ñëwee si yow style waaw parce dama gisoon Père Bégaay lu mel noonu waaw doon na dem ci supporters yi bu taxawee daan def nii ak supporters yi waaw muy foo ak ñoom xëy na aajam mayu ko woon waaw mais man ma nekk jeune. dëgg ak la génération bi nga xamante ni ñu ngi ñëw ci làmb. dëgg eh, la benn yoon la ma arrivé c'était le 4 avril deux mille deux mille deux mille quinze ans. Ah. waaw ci combat si tëla woon. c'était le 4 avril ah. waaw ci combat si tëla woon. c'était wala moo bëre 4 avril wala moom. waaw waaw non ah, ah. ma ñëw ci làmb ji. jub waa jàmm gën. ñoom ñu summeeku. ma sumeeku yaram neen après image boobu jooyloo na ma sax ndeysaan ndeysaan wallaahi azim ma uh-huh. foo ak ñoom foo foo affaire bi nag mujj di uh-huh. ma koy def ci bis yu bëri am na ci bis yoo xamante ne daf may marqué dëgg la après bu ma ñëwee ba ma seetaanaate image bi daanaka damay jooy da ngay jooy muy combat Balla Gaye ak Gris Bordeaux waaw sant lañ ci 2018 y Balla Gaye Gris Bordeaux. waaw y presque soixante ma jug presque la moitié du stade ñu summeeku. comprendre style e et comprendre que ces jeunes. ñu foo. def nañ ko fii mu rafet. juste rek pour wane ni ay ndaw lañu dañuy foo et que affaire bi ñun mun war nañoo wan wan nasaraan si que ñun am nañ suñu façon ambiance ñoom am nañu ambiance ah. bu Marseille di football bu Saint-Étienne di football wala bu Real di football léegi la ñu gis ñu def yaramu neen am seen façon bu ñuy supporter ah. ñun nag tey jii balaa ñu doon xam ne am nañ façon sax Sénégal doon bëre ak dëkk bu mag fii fii feesoo mu doon dëkk ak dëkk ci la ngeen di wan ne ñun. ñoo moom supporter lamb. waaw mais jël flambeau Bantamba sa papa doxal ko pendant pendant dix ans jël flambeau flambeau yomb na téye flambeau Bantamba. téye flambeau PPK yombul. Ah. mais da ngay da ngay da ah. que moom moo ñu tàggat ci loolu. dëgg yar ci loolu moom moo ñu yar ci mu liggéeyee. waaw. muy liggéey bu dëggu liggéey boo xamante fulla la ñuy def ak fayda liggéey boo xamante ne nii koy def ci professionnalisme ñu xool loolu e yàgg nañ ci yàgg naa ci mën naa ni mën naa ni ay deux mille deux mille sept waaw deux mille sept ba tey maa ngi ci dëgg la xam nga bu fekkente ne yàlla dogal na ma da waroon fubal fubaluma ma gaañu bi ma ko bàyyee ma ne dama koy topp ma ne nag damay jël loolu def ko sama métier kon damay xool yu bëri yu baax yi muy di xool ni muy liggéeyee mais nag lu tax mu yomb ci man nii c'est parce que xëy na dañoo gisatul l'image de Fred la personne de Becaye moo taxawatul def Bantamba mais c'est toujours Becaye qui fait Bantamba et c'est l'équipe

il faut donner la parole aux Sénégalais leur demander leurs avis ci li ñu xam ci mbërtaan li ñu xam ci mbërtaan li ñu xam ci combattant naka la ñu gisee lan la ñu war a def des fois damay ñëw Sénégalais ma ne ko lan la ñu war a def waaw mu joxe xalaatam bu ma gisoon nga defoon benn reportage bu doy waar si àll bi li ngeer la woon xaw ma ngay jox micro booy jox micro jaaykatu soow yi loolu lu mu demee woon te meilleur reportage waaw boobu reportage boobu li tax ma marqué ma waaw bi ma ko defee ba vraiment je tenais à te féliciter. dëgg la ndax li nga def dafa jéggi làmb. dëgg la da ngaa dem ci culture. Uh-huh. tey man depuis jour boobu. waaw yàlla seere na ni wax boobu nga ma wax dama ko jàpp. dëgg la région bu ma mën a dem boo seetloo. waaw damay jël seen aspect culturel. Uh-huh. damay dugg ci biir nit ñi. Uh-huh. noonu la ma dikkalee woon c' était free. dëgg la ma àndoon ak Bruno. ñu wàcc. waaw fenn mu ne ma jëlal micro bi ñu tooñ. ngeen toog di lekk dibi parfois sax. ñuy toog des fois di lekk dibi ci mel. may jox micro ba jox micro koo xam déggul olof. wallaahi. dëgg la mu nekk reportage yoo xam dafa lay marqué mais aussi yéen yu mel ni yéen ah. ñi nga xam ne yéen suñu ginnaaw ñu dooleel ah. soo déggee mën na la dooleel mooy nit def lu baax nga woo ah. loolu dafa garaaw te man may marqué sa papa daf ñu jàngal ci yow daf wax yaay kan moo tax boo ñu woowee wax ñu dafa am lu ñuy def macha allah ñeneen ñu mel noonu moo tax yu bari buñ ko xasee def su ma amee ñu mu marqué rek dañuy xam ne loolu baax na nañ ko continuer Ama Ah, Moro vai já lá nas questões. Moro vai ter lá que me dá Moro lá nas questões que me. Da pisega. Da pisega parece. Wow. Parece. Lá lá mora passa. Ti Covid bola woon. Wow. Maintenant quoi ci ñom ñaar déjà. Wow. Metti ma ci promoteur. Parce que taxawal combat bu mënagul am. Modou Lo feebar na wér na. Avant loolu amoon na yu taxoon combat bi amul. Dëgg la. ay ay report am na ci. Ah. li tax ma mën a gëm ni combat bi dina am. waaw promoteur bi moo koy mën a wax ma gëm ko. Ah. te yàlla na ko yàlla kattanal ba mu am. amiin amiin. combat bu lamb soxlaa ñu ko. dëgg la waaw moo ngi noonu joxe na micro bi toujours il est professionnel toujours Modou Mbaye il est professionnel moo ak man mais joxe na micro bi pour gars yi jëli son

Eumeu Sène ay magu Ama waaw loolu bokk na ci lu tax combat bi war a am kon combat lay doon boo xamante ni ñi ngi ñaan yàlla moo am quoi am mais ña ngay lan ngay wax ñun ñi ngay wax ne Modou Lo léegi mu bàyyi làmb yow loolu est-ce que gëm nga loolu Modou Lo bu bàyyee làmb bàyyi li ko fal ah. bàyyi làmb bàyyi li ko fal bàyyi làmb bàyyi lu tax sénégalais yi bëgg ko dëgg la ah lu tax nga bëgg làmb lu tax nga bëgg Modou Lo lu tax ma bëgg Modou Lo lamb parce que nitu lamb eh, moom yi lamb yóbbu na ko foo xam ne ci àdduna waaw moom warul bàyyi lamb warul waa comme plus dire ah. même bu nee bëreetul warul bàyyi lamb la nag bu garaaw Modou Lo warul bàyyi làmb parce ko ko def ah boobu rëy na Modou Mbaye dégg ngeen lu mu wax si Modou Lo mais dernière yow est yow yaa ngi si nit ñi nga xam ne d'accord nañu Ama Baldé Lac de Guiers 2 yow est-ce que tu es pour sportivement je suis pour sportivement tu es pour mais ethnie dafa garaaw dafa sew dafa sew ethnie moo gën a sew ah, sport dëgg la sport mën naa boole waaw mais ay yuy bëre mën naa yàq naa yàq sportivement parlant je suis d' accord. bëgg bu naree am lu mu yàq ci mboq gi yàlla bu mu am. ndax Sénégal mboq la dëkk la gu rafet. ànd la. bu dee Ama ak Lac bu ñu bëree du am coow ci seen mboq. nan bëree bu dee bu ñu bëree daan dana indi coow ci mboq gi yàlla bu la am jàmm. question tax question piège. Balla Gaye 2 Gris Bordeaux le 7 août. Balla Gaye 2. Gris Bordeaux le 7 août. le 7 août waaw. j'en parle pas. j'en parle pas. xaaral ñu nangul ko il est toujours professionnel et il restera professionnel donc la sant maa ngi lay remercier ñaanal vraiment ki nga bëgg a yóbbu Bantamba yàlla na ko yàlla àggale amiin vraiment di la mérite sama xarit la waaw sa xarit la émission boobu waaw xam nga kañ la judd waaw le 20 décembre 2005 jour boobu la Bantamba juddu sunu lamb mu ngi juddu le 19 décembre 2005 le lundi 20 décembre 2005 si la Bantamba juddu Bécaye Mbaye dawal ko lu mot 10 ans jël ko jox ko doomam ki nga xam ne moo mooy Modou Mbaye Modou Mbaye depuis boobu mu ngi koy dawal si dawal bu rafet. dawal bu am maanaa si dawal boo xam ne feeling la dawal boo xam ne si âge am la ko defee ma Samba xoolul ma Demba kii mooy kii mooy Modou Mbaye ko bàyyi xel nañ ko ñaanal mu bëgg yóbbu làmb ak fu muy yéene làmb yàlla ko yàlla defal loolu loolu li may wax si moom loolu il est profité ne nee na message de Bantamba le 20 décembre 2005 jërëjëf Modou Mbaye merci merci